tax tey ma tuddee ko bis bi fas yéene ko ci dëlloo njukkal woo waa gépp woo département Tiwaawan gépp di leen wax sama waa ji toog muy monsieur le ministre Abdou Ndéné sàll li mu liggéey ci dëkk bi ak li mu liggéey ci président Macky Sall waaw. album bi maa ngi ko tuddee single bi ma ko defaral maa ngi ko tuddee dafa yaru dafa tey parce que ay jikkoom rek laa ko wayal xooluma loo xamante si ni nekkul ci moom ma créé ko di ko wax waaye ku xam tonton Abdou xam ni yaru na tey na ay jëfam moo ëpp ay waxam moo tax ci biir morceau bi mooy ko loolu waaw donc daal mënewuñu wax ju bari loolu laa tuddee wa euh, morceau bi waaw. jëf waa sama objectif ci musique sénégalaise mooy vraiment bëgg a taxaw woyal askan bi ci li nga xamante si ni moom la ñuy dund. mais tamit dafa rafet boo xamante si ni danga nekk ak nit koo xamante si ni mu ngi ci biir dëkk di fa def lu baax. da ko war a wax ba nit ñi xam kooku mooy kan moo tax ma jóge ci voix bi ma nekk woy ab Abdou Ndéné Sall defaral ko euh, benn single boo xam ne que moom la campagne ci campagne ba tabarkaale yàlla may ko ci ndam te du ma yem foofu ak moom parce que tamit wax dëgg yàlla merci baat bu ndaw la mais tubaab du ko wax ko deful dara moo tax ma delloo ko njukkal ci liggéey bi nga xam ne mu ngi koy liggéey ci Sénégal di ko liggéey ci Tivaouane ba Serigne Abdoul Aziz Al Amin daan ko ko seedeel waaw muy loo xamante si ni médias yi teg nañ ko ñu ko xam bari na donc nekk loo xamante ne lu ñu créé la sëñ Abdou gërëm na ko ci taxawaayam ci réew mi sëñ Abdou gërëm na ko ci taxawaayam ci dëkk bi yaayam tamit gërëm na ko ñaanal ko waaw moo tax tey ma am fitu taxaw di ko wax di ko way waa waaw. non génneeguma kaset nag benn single rek laa génneegum muy morceau bi ma defaral monsieur le ministre Abdou Ndéné waaw. lan mooy jafe-jafe yi pour yi mooy xam nga rek studio boo fa dee dugg tamit. musiciens yi da nga leen di fay heure fay tamit borom studio bi waaw loolu mooy jafe-jafe bi nga xamante si ni moom laa am waaw loolu kese moom ma tëree génne album mais kele naa samay morso bind naa ko pour suñu moon suba sax mën naa ko dem enregistrer mais moyens yooyu moo ma manqué waaw. est-ce que waaw xanaa léeg-léeg bu gars yi di jouer Dakar ñu woo ma ma dem ci soirée yi jouer su weesu loolu maa ngi ñëwaat fii toog Tivaouane di jaabante dakaar ak loolu rek waaw mais pour nga mën a jouer tamit il faut tamit def benn affaire. def deux singles trois singles clip ko bu ko defee média yi di la teg nit ñi xam la ba ñu xam la bu baax loolu mooy tax nag taf taf sax mën nga gis benn xarit bu jóge fee sax ñëw ni la man maa lay produire mais pour gars yi man lay gaaw taxaw il faut nga am loolu am lu mu bon bon war nga am benn clip boo xamante seen mu ngi jàll ci télévision yi amaguma clip waaw amaguma clip dafa yaru dafa teey dafa nangoo liggéey Abdou Ndéné Sall makki wóolu na la abdu ndeene bu jëf ji bare loolu yaay boroom su wax ji neewee loolu lañ la xamee waaw dafa yaru dafa teey dafa nangoo liggéey abdu ndeene sàll makki am na ci yow confiance abdu ndeene bu jëf ji bare loolu yaay boroomee su wax ji neewee loolu lañ la xamee waaw waaw abdu ndeene dafa yaru dafa teey dafa nangoo liggéey waaw Abdou Ndéné Sall Tiwaawan am nañ ci yow yaakaar waaw loolu laa ko woyal waaw te ci kanam tuuti bi ñu demee ci public bi ma mën a renouveler morceau bi waaw sama groupe bi mu ngi tudd Ñang Baalo rythme rythme waaw euh, mbalax waaw mhm. Merci, je suis Abdou Ndéné Sall. Mhm. Je suis le ministre délégué chargé du développement du réseau ferroviaire mhm. au du Sénégal et je suis le coordonnateur du département de Tuaon et je département de Tuaon pour la coalition benn Bokk Yaakaar ni ma ko gisee mooy góor dafay nekk artiste bu jàmbaar bi nga xam day door kuy door nag il faut que ñu pousse la gisoo dara lu xëy xëy sotti moo tax ñun ñi nga xam ne dañ fi nekk yàlla may ñu ndomb tànk dañ leen war a jàppale parce que artiste bu fi fël rek dañ laa jàppale moo tax ñu koy ñu war ko jàppale te léegi ñu ni que bala ngaa bala ngaa dem fu sori ñi nga dëkkal nga produire ñu xool kontaan bu ñu apprécier boo demee fenn ñu accompagner la moo tax tey muy def anniversaire am septième anniversaire di ko defee fii ci dégg ci pénc bi muy Kër Maas waa Kër Maas takku di ko accompagner nit bu ngay def politique nag dëkk Kër Maas maa ci waroon a njëkk nekk di accompagner moo tax bi ma ko paree ne ma kontaan ci trop accompagner ko pour mu def mu tëgg li nga xam ni moom la album bi nga xam ni moom la préparé mu tëgg ko may ko population bi ñu kontaan loolu sedd de l'animation ci ci anima politique ak animation ñoo ànd parce que lu fenn donc moo tax ñu yëngal tey yëngal koñ bi accompagner artistes parce que ci artiste yi ci message yi boo gisee président Macky Sall boo gisee mbër buy dem làmb euh, ñu woo kenn ku tëgg ñu koy xas ñu xas loolu la kii bi ñuy dem élection ci législative yi moo ñu defal benn cassette bu baax moom lañ doon wërati woon vraiment di waxtaan ak nit ñi donc aujourd'hui aussi dinañ ko dinañ ci occasionné waxtaan ak nit ñi wax leen président de la république li mu defagul ak perspectives yi nga xam ne moom la war a def ñu xam ni kooku dañ ko war a jàppale pour que mu am deuxième mandat sans problème parce que fi mu war a yóbbu Sénégal loolu bu fi bu fi nekkul Sénégal rek mooy perte te du ñu d'accord Sénégal perte parce que li mu jotagul naan dañ naan weddi gis bokk bokk ci li mu defagul ci Sénégal ci lu gaaw ci ci sept yi buñ ko fi bàyyee te yeneen cinq ans def naa ni mën nañu wax ni Sénégal dina doon un pays émergent le sens de cette cérémonie c'est la promotion quand même euh, de la culture locale. Comme vous le savez, c'est des artistes quand même très talentueux, mais quand même ils n'ont pas eu la chance d'être produits à l'échelle nationale et d'être connus. Donc euh, quand même c'est un artiste très engagé. Et cette chanson-là qui, m'a dédié, quand même nous l'avons utilisée. largement pendant les élections législatives, quand même, qui a été euh, très appréciée par la population et très suivie. Donc, euh, vraiment, comme aujourd'hui, il est en train de faire son anniversaire, nous sommes mobilisés quand même pour l'accompagner parce que, euh, comme vous le voyez, tout Tuawan quand même est, mobilisé pour venir suivre ce spectacle. Donc, euh, on va profiter quand même pour euh, parler un peu du président de la République, de son, de son projet du PSE, de toute l'ambition que le président a quand pour développer ce Sénégal. C'est pourquoi c'est extrêmement important parce que c'est un dialogue. C'est une tribune qui va nous permettre d'avoir un dialogue franc, un dialogue direct avec la population de Tiawan. vraiment, je les remercie beaucoup, je les félicite parce que quand même c'est un artiste talentueux qui est en quand même de travailler, travailler quand même pour euh, vraiment euh, donner de la valeur à la culture locale par la chanson et par l'organisation parce qu'il a un groupe, donc il crée de, il crée l'emploi. Il faut, il faut seulement que, que nous tous, que nous soyons unis et qu'on l'accompagne quand même pour persévérer et pour percer et eh, dans, dans, dans ces activités de, de, de culture.